lii di parce que xam nga euh, su ma ko doon analyser. Hmm. avec de la froideur. Oui. pour en m'inscrivant dans l'école de Nietzsche. Oui. Euh, j'allais dire hein, sans pour être méchant d'ailleurs que Yewwi Askan Wi. Hmm. Euh, dès le début euh, ñu bëri dañu miser woon ci scénario bii ñu nekk nii en fait euh, parce que peut-être. réalisme politique. Oui. ils avaient vu venir que Sonko peut-être ci problème yi mu dugg ak bras de fer yi mu dugg. du ci génn at the end of the day euh, du ci génn te am na lu muy demee du nekk candidat léegi bu ñu ko nekkul candidat kan lay yekkal pour man nag euh, dans ce jeu là. da ngay dugal sama maire bi ndeysaan ay dëmbëj ah, ah ñoom dugal eh, ye eh, ñoom Barthélemy Khalifa Sall mm. euh, dugal ñoom Habib dugal ñeneen ñi quoi mm. comprendre mais peut-être que Habib a la patience xam nga mag la grand la ba xam nga a la patience parce boo xoolee après xalifa def dem na. moom moo jiite après très bien voilà très bien après ay Mbodj samp na ndëndëm euh, ñi nekkoon foofu ñëpp ku ne déclaré nañ donc. Habib rek moo mësul woon déclaré toog xaar est-ce que est-ce que kon benn instant du point de vue stratégie politique Ousmane danaan waa comme paa bi m'a fait de fidélité te fekk paa bi yëpp da doon yeeroo rek da doon xam ni et léegi nag bon euh, pour ne pas pour arrêter l'hécatombe hmm. euh, naa ko am lu ma ko joxagum benn yàq mu commencé ci ronger bala muy gën di def comme ñeneen ñi ou bien comme comme léegi ñëpp dem nañ moom rek moo fi des comme ça def ko kii donc on le fait euh, candidat euh, mais ça devient une candidature politique quoi en fait une candidature en termes de communication politique mais pas une candidature électorale en fait mais une candidature de communication politique comprendre nga hmm. donc mu ñëw mais et que peut-être Diomaye ou et cetera pour man li ma ko xalaatee ci short list bi. Hmm. mën na nekk kii bi parce que xam nga lu tax euh, li ñu daloon. li euh, ñu daloon Sénégal. Hmm. ñun les hommes de gauche là li ñu daloon nag lay Wade. Euh, ce que j'appelle les syndromes Ablaye Wade. Hmm. waa tey dañuy waxtaan ah. léegi damay bàyyi Habib Faye. waaw naa ko bàyyi fii ah. Oh, sama mbokk Sisi la Jolof Jolof xam nga dans la migration des Pulaar la hmm. nous tous nous sommes partis du nord quoi. Euh, léegi nag après migration bi d'ailleurs euh, je dis le le premier village. Hmm. disons bi ñu jógee Bundu Bundu c'est l'actuel Kidira. foofu le foyer ardent bi nekk quoi Euh, ñi ngi euh, immigré wu. Hmm. d'abord godo. nga may ma rek ma def benn parenthèse dafa baax ci histoire euh, les deux premiers villages toucouleur qui ont été installés créés bi ñu déparé Bundu c'est Godo et Guédé Godo mi ngi nekk Agnam Siwol mi ngi nekk mo Agnam Siwol ak Godo Hmm. mi ngi mel ni euh, bitig ba ak kër ga. comprendre nga. benn chose la. bi ci desee dans le Podor muy Guédé. fan yii xam nga maa ngi woon Fouta. waay grand loolu dama koy jooy foofu sax laa waroon commencer. Euh, Godo pour lépp lu muy représenter ci histoire le premier village toucouleur avant Jésus-Christ. di hmm. dund. Hmm. nit ñaa ngi doon dund foofu. les migrations grand amuñu ndox amuñu courant. et pendant temps là xam ñoom ñi ngi bokk ci ñun Agnam Siwol euh, la commune des Agnam pendant ce temps sunu maire bi moom am na ñetti forage benn mi ngi ko def këram benn mi ngi ko def ci ay toolam benn mi ngi ko def ci ay nagam ak yooyu. te euh, maire Agnam Siwol mooy d'ailleurs booy fan yi euh, waaw far ba te fan yi gars yi gars yi dañu takk morceau bu xonk gars yi man période ma fi nekkee ci dëj bi gars yi def nañ fa marche takk morso yu xonk di loolu dafa sax ruslu et gis nga godo Euh, añam godo nañ ñuy wax sax wala godo ak añam siwol benn la comme da ngay taxaw nii di gis euh, kër yi nele mais grand amuñu ndox amuñu courant pendant ce temps là añam ñoom am nañ ndox am nañ courant te ñoom bokk ci bi te pour l'histoire c'est le premier village peul qui a été créé après notre migration après que nous ayons le Bundu et pendant ce temps là maire bi war a gérer lool moom këram d'ailleurs am na fa forage Eh, ay euh, toolam am na fa forage te lépp ci biir coté biir dëkk bi ah ay fii nagam yi nekk am na fa forage. maanaam équité yeggul très bien te Godo forage bi ñu doon jokkoo ñoom association France na ba yi nekkoon fële. Hmm. Euh, ñoo ko installé woon mu am ay problème ba forage ba doxut ko hmm. mais mais dans la symbolique je ne m'imagine pas Godo premier village amul ndox amul courant alors que Anahim Civol eh, donc loolu. grand parenthèse la bu ma doon ñëw. waay bu ñu dellusiwaatee ci Habib Habib lañ nekkoon. voilà très bien ah, non non en dama bëgg a pour wax ne. Euh, là généralement waaw je du syndrome Ablaye Wade li ñu mm. ci Ablaye Wade 2000. Euh, waa gauche mën na nekk le syndrome Habib ci Ousmane aussi. xam nga lu muy doonam. mooy ñun 2000 euh, Ablaye Bathily. Hmm. feu Amath Dansokho yàlla na ko yàlla yërëm Landing Savané. euh, traditionnellement quoi les les grands partis de gauche de l'époque on s'était rendu compte que ñun du ñu ay parti de masse comprendre nga ñun on de des de réflexion de perturbation déconner <laughs> xeer voilà contester affaire xam nga euh, mais euh, on, est, on, on est davantage des partis qui font progresser benn cause que ay partis yoo xam ni démographiquement mën nañ dem gagner ay pouvoir comprendre te loolu euh, Dansokho moo ko njëkk a comprendre mais à ce rythme ay 3 5 pour cent la am léegi nag comme ñun ay idéaux nañu yor il nous faudrait s'appuyer sur un parti de masse à l'époque c'était le PDS. waay est ci loolu nañ demee France expliqué te pas bi ndax Ablaye Wade bàyyi woon na. politique moom bàyyi woon na. ba toog ñu dem toog gars yi toog waxtaan ak moom expliqué ko feneen yooyu. jabar ji bañoon Viviane Were ba tëdd ci raay bi mais comme devant l'insistance Ablaye Wade ne léegi dina def la dernier coup comprendre mais bu fi jógee moom bu ko kenn sonalati quoi bàyyi na Wade était revenu sans conviction gars yi ne ko boo ñëwee dinañu gagné mais lan moo doon deal bi derrière. lan Wade dafa ni comme moom mi ngi jom mag léegi dana ko def pour. wormal déplacement beeg yooyu ak xeex bi comprendre nga li mu laaj quoi mais moom euh, il a fait temps et que même bu yàlla defoon ñu gagné moom il ne pour faire qu'un seul mandat et il a même théorisé mandat de transition, de après mu jox ñun waa gauche ñu dawal xam nga gars yi d'accord ñëw ànd ak Abdoulaye xam nga hmm. d'une situation désespérée <laughs> ça est devenu une opportunité enviable <laughs> gra euh, bi gagné mais xam nga nu mu def méthodiquement. oui <laughs> euh, mu euh, commencé wu di séparer wa gars yi par kenn par kenn Moustapha Niass la njëkk a commencé après un an matu sax un un an mu ruux ko tàppas ko histoire xam nga woo ay xale. ne leen tàccu leen ko waaw xoolal gars yi ko xuloo ba tas comprendre nga et d' foofu mu commencé nag di jël. Euh, homme de gauche d' abord euh, Landing Savané la mujjee jël. inde hmm. mu xuloog Ablaye Bathily. provoqué ko xam nga maanaam da lay day provoqué day ñëw provoqué ne tooñ la gars yi wala yow mu woo ay booyam leen xuloo leen ko sànni leen ko xeer <laughs> ko suuf gars yi xëpp ko mu jógee fa def à l' la gauche. Hmm. erreur bu mu defoon mooy euh, loolu lépp Wade laa fait dans la durée. comme Wade mi ngi doon doog a toog ñemeegul woon bu baax ba mu dàqee Moustapha Niass rek. gars yi waroon nañu xam ne ñun ñoo ci topp. Hmm. léegi bu ñu defoon bloc génn ko bàyyi ko gouvernement am du dem parce que waat novice la woon ci affaire yi. waaye mais gars yi nag ku nekk di def chevauchée individuelle ba tax ku nekk mu lijjanti la cas par cas bi muy paree ci ñëpp nag fekk na mu toog ba miin la réalité du que diggante 2000 na lu ne ba mais bu ñu ko la gauche bu ñu ko teeloon xam. Hmm. avant un an mu tàqale Moustapha Niass. avant en budget ñun ñëpp ñu génnandoo gauche ba pare def ko opposition. dafay reculer mais dañ ko bàyyi ba mu miin l'appareil ba miin système ba xam xam ni ñu mën nañoo dégager continuer 2004 waat dégager ñëpp indi booyam idi ñëw ñuy dawal. xam nga fan nañu mujjee ak moom ko doon wax mandat de transition rayante rayante nañu <laughs> mu ak moom pour mu baax mu ñu day def troisième mandat comprendre mën na même scénario boobu léegi nag léegi nag su fekkee Ablaye Wade mi nga xam ne daa xeex démocratie xeex xeex ba agsi fii. Hmm. moo ñu mën a def lii asamaan nag ku doon tëdd <laughs> muy dox <laughs> xam nga wala nga toog muy dox ba affaire yi sa loxo est-ce que mën nga leen expliquer <laughs> et cetera et cetera. maanaam ji li ma kenn waxee euh, ah, rek damay ko dégg benn jour mu wax ba wax transition waxee ndax fañ jaaroon <laughs> transition transition rek lay a dégg waaw bu këppatalee waa Pastef bii ba leen transition bañ jox ko bilaay danañ <laughs> les transitions euh, peut euh, de et de, et de toute manière euh, loolu mooy le risque euh, dison organique mais le risque dynamique. Oui. mais attention grand gars yi. Euh, Ousmane Sonko nañu amal affaire de le mouvement révolutionnaire la oui ñoom Ousmane Sonko nañu amal affaire léegi bu Ousmane Sonko demut ki leen di Ousmane Sonko di joxoñ hmm. dañ koy segg seggaat ko de c'est pas n'importe qui de non. est-ce que du du li li li ñuy théoriser. koo ñu joxoñ rek. déedéet du loolu de. Ah, yaa ngi dégg ñu parce que bu xëyee suba joxoñ leen Habib Sy mii du dem de. ah ah. ah yow tamit gars yi gars yi yow tamit du dem euh, bu leen joxanee jomaay mën naa dem bu leen joxañee Cheikh Tidiane Dieye Cheikh Tidiane Dieye mën naa dem. Déthié Fall euh, oui parce que ñoom ngi ci encrage bi. Hmm. Euh, loolu mooy xam nga dañuy waxtaan tey. Hmm. maintenant. beneen waxtaan xam nga tey waxtaan moom. waaw tey waxtaan moom xam nga tey foog ma kii la dabu a dabu quoi. <laughs> waxtaan mais mais sama beneen waxtaan waaw. da ngay ba. <laughs> béy ba oui béy ba. daa ñëwaat tey. Ah, woon nañ béy bi nag fi ñu toll. parce que on a comme dañuy waxtaan fii. attention ñu bàyyi fee. am ñuy waxtaan feneen. voilà waxtaan yi dafa bëri de. béy ah. euh, dama ko yabal fan yi hmm. mais bu mu ñëwee attention grand surprise mën naam am de. Hmm. xam nga gars yu bëri ñu ngi naan Sonko joxoñ. waaw bu Sonko joxoñul nag seetaan. seetaan ah mais grand on est dans politique et su ko doxalee comme ni Wade doxalee woon. en 2019 bi. Ah, mais grand politique. mais boobu dafa fekk ñu jaaroon Conakry. très bien il faut même prévoir l'imprévisible en politique. Hmm. attention lu war a mën a xam c'est cas de figure boobu. Sonko mën na rek bañ a joxoñ kenn de attention. ah uh-huh. Sonko mën na wax ni euh, diw diw diw diw yéen militants yi ku leen ci neex tànn leen votel leen attention premier cas de figure. deuxième cas de figure. Hmm. mën na ne tekk tekkaaral gi mu tekk tekkaaral. oui cest à noppi bàyyi gars yi ñu dawal. loolu lépp ñi jàpp ne tekk tekkaaral mooy day xaar ba procédure am parce que comme jeexagul dugal na ay recours bien la ñuy xam ndax dana am déet. voilà léegi nag euh, hypothèse ah cas de figure ah bokkul. léegi nag moom il s'est dans un silence bàyyi waa Pastef ñu dawal c'est-à-dire que bokk exemple. comprendre Diomaye dawal est-ce que comprendre hmm. cest dire que euh, dans l'analyse nañu teg les trois cas de figure comprendre parce que je pense que notre rôle de chroniqueur <laughs> euh, c'est de c'est d'ouvrir ouais, les portes qui sont parce que gars yi fi ñu ci logique joxoñ joxoñ non effectivement mën na joxoñ gën a yombalal affaire yi Diomaye mais mën na bañ a joxoñ ou bien mu joxoñ ay nit ne. maanaam du doon benn joxoñ quoi day teg ñaar ba ñett ñeent hypothèse ne leen voilà ñii ñooy le camp du quoi ku ku leen ci neex. Euh, joxal leen moo tax il faut ñu commencer di teg alternative yooyu dans l'analyse quoi. lu tax lu tax nga jàpp ni mën na évoluer ba yegg si ci bi ñu mujjee wax nii. Mhm. lu tax euh, nga jàpp woy mooy li nga li nga wax ni mën na bañ a joxoñ hmm. lan moo war a mën a tey bu Ousmane Sonko demoon ba yeggul ci joxoñ hmm. lu ko war a mën a expliquer. parce que ba nii maa ngi lay wax sànq na la même ay avocat am dañu jàpp wow kong ku mel ni maître Ciré Clédor li hmm. nii ay euh, en tout cas argument béton la ñu am la ñu jébbal conseil constitutionnel muy recours hmm. amul feneen fu may jaar lu may ni Ousmane bokk na waaw waaw moom te dana feeñ ci hmm. liste bii. absolument mu bokk sax moom la ñëpp di ñaan ah. euh, te nguur gi. dama koy faral di wax du ñu ma bàyyi xel. Ousmane bokk de moo gën a oyof fuuf ci ñëw Ousmane ñàkk bokk xam tax. Hmm. parce que bu Ousmane bokkul référendum lay nekk. dañuy nekk pré élection référendum <laughs> dañuy nekk élection en même ah. temps référendum. Ah, ah. mais bu élec Ousmane bokkee moom élection rek lay nekk élection présidentielle. mais bu Ousmane bokkul day nekk élection plus référendum présidentielle est-ce que nga. parce que di nga gis ay gars yoo xam seen yoon nekk ci yoon sax. dugg ci waaw xëy suba ni comme affaire yi nii nii la demee kon Macky daf ñu bëgg a par force <laughs> Amadou Ba mii danañ ko wax ni réew mi ñëw ko moom ko xëy suba sangu ba set <laughs> dem rang yi mu jaral leen ko ñu voté est-ce que nga. Hmm. voilà moo tax fi mu toll nii euh, ñoom bu ñu xamoon ñoom bu ñu xamoon. Euh, Ousmane. Euh, bokk moo gën a oyof ci ñoom. déet koo xam te ne que yaa ngi dugal ay recours pour ne diw warul bokk diw warul bokk kooku kay. Mhm. <laughs> soo koy def. waaw te xam nga ni li nga ci jublu mooy ki leen coiffé di Ousmane sonk mooy. Mhm. moom ay mbiram kon leer na. wala bu ñu sukkandikoo ci recours bi ñu dugal Amadou Ba. Mhm. ndax njort yi mën naa yegg ba foofu.